waaleykum salaam wa rahmatullahi wa sëriñ bi maa la fay nuyoo di la delloo ziyaara di la bal xaq di la bal xaq di sakku yow it nga bal nu xaq bu baax a baax tabaarakallahu ndax njaaloo dana dagg ni ci tariixa bi waaw bu fekkee saxoo ci de mën na laa bañ a dagg ci tariixa bi ndax benn bàkkaar la ci bàkkaar yu mag yi soo ko defee gaawal tuub ko bu fekkee nag danga cee sax dàq dàkk te caa jug ah am na lu ci Cheikh Seydi Ahmad Tijaan Sërif waxoon ne ku sax ci njaaloo ak di lor mbindeef ak di wooteeg sëriñ yu kenn xamul wooteeg wilaaya ak yu kenn xamul yàlla te dana ko nattoo balaa muy faatu ñu rekki ngëmam te su ngëm yàllaam rekki ko dootul nekk jullit te su nekk suñ jullit dootul mën a ki tarixa kooku nag mu ngi wax ki sax ci njaaloo dàkk dàkk dàkk dàkk waaye bu fekkee da ngaa juum def ko tuub ko kooku moom doo dàkk ci tarixa bi mhm. waaye nag sax ci dàkk nag moo tax di wax ñaareel bi mooy ndax doomu njaaloo doon dugg aljana cheikh da nee na du dugg aljana ndax ni ñu ko fonde moo baaxul ndax cosaan ba sobe la jaaruñu ko fañ ko war a jaar jaaruñu ko fañu ko war a jaar ñàkk dugg aljana mi téere taxul na day dugg sawara boo xoolee téere naan laa ñi nga xam ne dañu nekk la araaf te laa la araaf danañu dugg aljana xanaa day yeexi kay mooy doomu njaaloo bokkoon na ci yuñ doon lim bokkoon na ci yuñ doon lim tabaarakallaahu cheikh teg ci nag ne bu fekkee ne dafa liggéey liit yàlla wala borom jamono ah yàlla mën na ka mën na ka baal ci barki nit yàlla boobu ci nit yàlla bi tëggaat gi mu ko tëggaat ba sansewaat ko ba joxaat ko beneen wëlër daal yàlla dugg dugalee ko ci àljana incha allah lii daal <clears throat> la borom <clears throat> li faadatu ahmad ya wax dañuy wax ci téere yi de cheikh radiallahu taala <clears throat> kenn ci ay taalibim ñëw na ne ko ah def naa bàkkaar bu rëy de te mooy lan anna baada ashaabihi radiallahu anhu waqa fi kabiratin def na bàkkaar gu rëy rëy summa ata sayidana radiallahu taala anhu qaifan mazuran fa zakara dalika lahu radiallahu anhu fa qaala lahu laysa alayka illa an yatuuba ila allahi taala wa anta minni wa ana minka loolu la Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Cherif wax waaw kay kon nag uh, mangoog mangoog daal waaye nag wax naa la beneen wax boo xam ne moo jiitu woon te bu ci saxee dàq lii day fekk saxu ci dàkk na